am mooy projet bii ma am Koungheul tabax fa jumaa gas fa teen tabax fa daaray alquran tabax fa itam jullikaay jigéen sama yoon wi passé avant corona wi si fii dama yónnee Alaaji Assane Diop bu Koungheul moom moom laa dénk projet boobu bi ma ko amee bi ma tabax jumaa ji itam ci loxoom laa daan yónnee xaalis bi ñu tabaxal ma jumaa ji ba mu pare Malak Assane il était de bonne foi daal di ne ma kurlu téléphone ma wuy ko moo waa ji nar a def lu baax loolu waa ji ni man de dama bëgg volontairement tabax fi daaray alquran ci biir jumaa ji ndax xale yi di fa jànge bàyyi jumaa ji di jànge ma ne ah kon baax na ñu daal di ma daal di ne waa ji dañ jaar man maa ngi mbuur nga bind signé ne man nii damay sarxe daara ngir yàlla kooku daal sarxe daara ji ñu taqale ko jumaa ji beneen waay jaaraat fa ne dafa bëgg moom itam def lu baax tabax jullikaay jigéen ñi ndax parla lañ jural jumaa ju rëy rëy la waa Koungheul bu ñu ko fees ñu daal di dindi parla bi kooku tabax jullikaay jigéen alakasan woo na ma téléphone dend ak benn bailleur de fonds bu ñuy wax maadu maadi sila ma ne ah mu ni ma waaw mu ni ma kii nag moom itam dafa bëgg à son mu tabax daara ju moderne ci biir terrain bi ngir yalla ak jullit yi population Koungheul di ci jang yàlla eh, di ci jaamu yàlla di jang alquran man lolu loolu na ci waye nak ne def ni ay moromam def na jaar fi ci mbour ci bureau national bi bind signé ni man mi damay def volontairement li ci yalla tax pour population Koungheul ak li góor bi ma ñëwee pour continuer liggéey ci biru yoy ma yone won Alaaji Asan khalis bi ma fekk fa batima yoyu ni leng ma ne waaw bâtiment yi kan moo ko fi def yu Diop doom ji nga xam ni moom la ma Alaaji Asan bi xoon pour ñu jiite jumaa ji di jàngale alquran mu ni ma beneen waay moo ko fi def man ko beneen waay mu ni ma waaw man ko ah waa ji kay kon moom suñu terrain la tabax finalement bi ma xëyee ma dem mairie di réclamer mu topp ma bañ yeggee la ni carrément man maa ko fa tabax damaa am kayit këyit maire moomay këyit

ak administratif bi 95 la woon député Alaaji Maam Samba Seck moo ñu ko attribué te bi ma koy attribué man ak Alaaji Assane Diop ñoo ànd ak ku ñuy wax Alaaji Omar Ndiamatu sàll ak ku ñuy wax Alaaji Seet Sall ak ku ñuy wax Moussa ak sëñ Ibrahima Sall bu Ngéeraan lii mooy autorisation bi de construire bi ma permettre ma tabax jumaa ji tabax daara ja tabax jullikaay jigéen ña tabax euh, kii bi euh, nu ñu koy waxee ci toilette ja autorisation de construire baa léegi bi ci tegu mooy le plan cadastral officiel bu cadastre bu kaw Kaolack ñoom ñoo ñëw def délimitation bi wan ma ni lii nga am muy 100 mètres sur 65 mètres mi man nak bima ma ñëwee lii laa fekk sama gaaji tabax fa ginaaw jumaa ji ñu dem ba ca kaw ñu tabax fa ñaari kër ñi ngi nii ñaari kër yi nak bi ko tabaxé ci seen tour lañ ko tabax fu ñu jëlee kayitam a jaaxal xam naa ne bu fekkee kayitu mairie bi ñu wax am na ndax man wanuñu ma ko la mairie de Koungheul est complice et il fait partie dans les associations des malfaiteurs parce que kenn mënta attribuer ab terrain ci ginaaw ginnaaw attribution boroomam. te bindaluñu ko leetar d'avis de retrait du terrain te loolu ki ko war a def mooy cour suprême bu réew mi taxawal rek ma jël huissier de justice de Kaolack maître Moussa Ba yóbbu ko commune kooku daal di def moom itam euh, constat wane ni lii de man fekk naa ko ci terrain bi ñu tabax ko ci te kii ma xam ni acte administratif yi moo woon yu terrain bi nee defu ko fi kon ku ko mën def tam def na ko fi ci malfaiteur man tam bima ma ku ngel tok touti préfet de ku ngel dal may téléphoné Ndiaye né ma kay wuy ma dé départ dem dem bi dem bi rom préfet di ma menacé ni may yow Ndiouga Dieng yow ya bëgg a taal réew mi yow ya indi ay ku euh, ngel ay problème problème mu jakké ji ak nangam nangam xara je appeler le gouverneur de Kaolack daal di composé ne gouverneur mu ni ko waaw mu ni waaw y'a un certain Diogadien qui est venu ici français lay làkk walaay qui est venu ici pour amener des problèmes dans le dans la mosquée de Koungheul te la mosquée de Koungheul appartient à Alaaji Diogadien nes mu coupé xaw ma nag la ñu wax mu téléphoné gendarmerie boobu téléphoné naa huissier bi maître Moussa Ba mu déparé Kaolack bi ñëw ak seegi bi ma laajee ne ma est-ce que yow yaa woo maître Moussa Ba naa ni sëñ Aliou ko ko wax ndax bi ma ko woo ngi taxaw man ko maa ko mu ñëw bon la gendarmerie y a le maître Moussa Ba qui mais il faut jamais qu'il fait le constat jóge de boo amené de problème gendarmerie tontu wuñ ko mbaa boobu déggu ko ci loolu nag man li nga xam ne moom laa bëgg mooy li ñëpp bokk boo ko giiroo dañ leen delloo ci lu bokk li may bëgg mooy mu delloo si waat loolu mu fa def ak tabax bi bailleur de fonds bi ñuy wax Maadou Silla euh, tabax joxe woon xaalis bi tabax ko loolu dellu soit ci alali askan wa ndax man dëkkuma ko ngeen julliwu ma jàkk sama doom jàngul ci école teen ba maa ko fa def waaye naanu ma ca toilette de dem ma